mouvement Thiès laa dëkk tey dañu amoon benn initiative bu ñu doon def initiative bi mooy li ñu yàgg di def à tout moment rek tey moom lañ ñëwoon di répondre li nga xamante ne lii tey ci la suñu xalifa général bu tedd bi di ko ñaan yàlla mu wér te gudd fan euh, mooy ñu jël ay décision ay mesures yoo xamante ni tey bu ñu ko jëlee ñoom ñëpp bu ñu demee Touba dellu siwaat si jàmm euh, bu boobaa rek de jàmm rek mooy xew moo tax ñu ñu jógoon tey jël ay gel ak ay masque pour jox ko nit ñi accompagner leen sensibiliser leen pour que ñu dem ci jàmm dikkaat ci jàmm euh, vraiment suñu dëkk bi continuer waat ci jàmm ñu ngi remercier ñëpp nag euh, surtout waa mouvement bi ci seen taxawaay ci boole li ñu am ci taxaw lépp ngir Cees jëm ci kanam mënuñoo bañ a dem nag te santuñu ki nga xamante ni kii moom mooy Ousseynou Diouf ndaxte daf ñu seen ci garage ñu taxaw mu jaar fa vraiment indil ñu ndox mu bëre taxawuñu jàppale ñu te loolu yëg bi rek moom dafa am solo quoi ñu ngi koy remercier bu baax particulièrement Ablaye Dieye Ablaye Dieye ñu ngi koy sant di ko gërëm ndaxte démb la yëg action bi mais bi mu ko yëgee dafa woo Massaer yónni ko ci ñun vraiment taxawu ko taxawuñu jàppale ni maa ngi seen ginnaaw kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ndaxte moom wane na ni ci mouvement bi la bokk wane na ni mouvement bi mouvement am la euh, ñi ngi gërëm ñëpp vraiment di sant parce que mouvement bi tout le temps mi ngi woon ci ay action ndax euh, jóge woon nañ ci période Covid bi mu metti woon trop ñu ñëw retourné euh, ñëw ci tamxarit bi jàppale ci ay nit retourné ñëwaat ci cours de vacance yi nga xam ñu ngi koy préparé ak yeneen ak yeneen bientôt nag aussi dinañ taxaw pour def benn waxtaan boo xamante ni assemblée générale lay doon ñu xool ci wàllu politique gu cees nan lay nan lañ ci mën a accompagner ba waxtaan ak nit ñi euh, ñu xool lan moo war a jëmee suñu dëkk kanam bu ko defee euh, vraiment ñëpp jàpp ci taxaw loolu daal tey li doon solution bi daal moom mooy fexe ba accompagner nit ñi taxawu leen ci li nga xamante ni lii moom mooy masque yi vraiment ñëpp euh, ak ay gel vraiment ñëpp. Euh, respecter mesures yi dem ci jàmm màggali ci jàmm dellu siwaat ci ci jàmm waaw voilà jox na joxe nañu ay daayira dem nañu côté parcelle euh, retourné dem garage euh, ñëwaat fii ci côté course bi vraiment ñi ngi remercier ñëpp di kontaan ci ñëpp di ñaan yàlla ñu dem ci jàmm dellu siwaat ci jàmm jërë ngeen jëf